waaw lool laa doon wax. jërëjëf solo. <laughs> am na solo am na solo jërëjëf am na solo xam nga tamit euh, Mati pour ma delloo la rek. Mhm. Euh, consulat yeeg ambassade yi war nañu xool yam jumtukaay mhm. la ñu war a am. Mhm. ba Sénégal boo xam ne bakkan wot na bitim réew. ci wàllu rapatriement bi ñu jàppale la ba sa néew yegg si waat. mais ñu leen di appuyer ci ministère des Sénégalais de l'extérieur. xam nga li ñuy faral que ni euh, am na état bu fi nekkoon waaw ministère boobu moom lu muy jëriñ. kon demal xam nga état. am na bu fi nekkoon. Mm-hmm. xaw ma ñaat Sénégal de l'extérieur lañu am. Mm-hmm. amoon na ko xam dafa chargé woon affaire extérieure. Mm-hmm. moo chargé woon lépp lu loolu mais dafa mel ni que ni Sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi dund bitim réew. waxuma la sax Europe mais ñiy dund Afrique rek. ñu ministère boobu. parce que déjà xamuñu liggéeyam. di nga fi gis ministre bu fi nekk du ñu xam la. kon lan mooy liggéeyu ministère boobu. waaw Sénégal bëggoon naa ñu wax ma ndax yëg nañu. ñu bëree bëri parce que déjà boo demee li leen njëkk laaj loolu lañ leen laaj mm. suñu ministère de seen euh, am na benn benn benn boo xam ni mm. am dem naa fenn vacances ñuy laaj kan mooy seen ministère Sénégal mm. moom te ay sénégalais de laaj ah oui ñoom ñoo koy laaj kan mooy su ministre loolu lañ leen njëkk laaj léegi yow da jaaxle parce ki nga xam ne moom moo leen war a toppatoo war leen dimbali war leen jàppale bu ñu amee yenn problème ñoom xamuñu ñu soo ci ñambaasee consulat yeeg ambassade yi. ak ñoom seen waaw defe naa daal affaire nga dem ci nga dem ci consul bi balaa ngay am li nga bëgg. Hmm. bul sonn li am Sénégal moo am foofu. da ngay neexalaatee ak ñoom seen. dégg naa ko yeeg yooyu jëlee ki ci. allo yéeme na ah, ngi sant yàlla bu ñu ngi leen di nuyu baax di siyaare. ñu ngi lay fay. di nuyu Mati Adja Déggen. bu baax. sëñ Ndiaye Lo. Mm-hmm. jërëjëf. ñaan yàlla yàggal taxawal seen taxawaay. te li ngeen di wax xal na ko nit ñi te ñu jëfe ko nag. allahumma amiin mhm. waaw te ñu jëfe ko yàlla ko yàlla def. waaye bu fekkee pour pour après jafe-jafe immigré yi pour maanaam ñi nga xam ne bii dañuy nekk yàlla moom seen bakkan ci réew mi. Mhm. pour ñu dem Sénégal Sénégal yi si seen boppet war nañu góorgóorlu di jéem a bokk si association parce que am na sa association xam ne loolu rek seen taxawaay képp koo dara loolu revenu la fi ñoom ñoo jël sa lépp ba jébbal la say mbokk. Mhm. waaye ñu bari boo leen waxee dañuy lànk. Mm-hmm. dégg nga booloo moo indi doole de l'union fait la ñu bari boo leen ko waxee dañuy lànk duñu ci bokk. Mm-hmm. lépp lu ko ëpp mm-hmm. parce que nit ki moomul boppam. ndax lu am solo parce moom ci ci ci rek lay ñëw. kon nag nañu fexe ba bokk ci association yi. booloo. weer wu nekk la ngay joxe du doon dara am na si ñoo xam ne di di joxe par weer. waaye xaalis bi danañ dem ba fi ku fi koo xam ne kii yàlla dogal na loolu dal la fi. Mhm. ñoo lay jël ba jox la say mbokk. Mhm. loolu am na solo. waaw. am na solo trop jërëjëf jërëjëf kooku jigéen sama laaj. Mhm. gis nga dëggan dafa am yoo xëy ñiy def loolu. mooy judduwaat gi rek. gis nga Côte d'Ivoire. 77 laa fa dem. boo nee salaamaaleykum doon gan. ba ñu yëg ni ñëw nga. Mm. dañuy def délégation seet si la. Mm-hmm. ba xam noo nekkee. Mm-hmm. ak foo jóge mm. ndax dal bi nga dal normal na am déet. Mm. soo defee ñu le bis sàngam. na nga ñëw daayire ak mm-hmm. dayre bu ma doon. nga dem. iski jox la carte. weer wu ne nga joxe ñaari téeméer. amul benn du Sénégal bu faatu ko di waat indiwuñ la Sénégal. waaye dafa am yoo xam ne dafa normalul génn Sénégal tukki. judduwaat yor sa kilifa bopp. Mm. bëggu xam Sénégal bëggatoo wax waxi Sénégal bëggatoo làkk sax waxi olof. Mm-hmm. xanaa jël li nga xam mooy cosaanu réew ma. Mm-hmm. sol ko muy mbub moo xëy tubaarkàlla bi mm. bëggoo koo summi. Mm. bis bu ab savaan dikkee foo jaar sonn. di ña lay ña lay ah, benn bi ko ñaareel mooy. tànk du ñu testé. conseil yi. Mm-hmm. ak ambassadeurs yi. ak ministre yi ñuy fal. Mhm. heure di am. heure yag na am. dëgg la inauguré yi dëgg la du tay du dem du barki dem yag na yag na fi. yag na fi du fi jog tay de kiss na du fi jog deug la. yele ki si ligne bi di tay mat di Mati. salam alaykum salaamaaleykum. alaykum salam ñu na ngeen def. ñu ngi sant yalla bu baax. ay yam na ko sene ma def fen dara. alhamdullilah maa sama nijaay Ndiaye Lo. Mbacke Balla ma ngi lay fay bu baax. nuyu sama yaay dégg sargal nañu la. waa yéen jàmm baax. alhamdulilah <clears throat> émission bi ngeen bi ngeen nen yi tey seen émission yëpp am na solo mais bii moom moo ci raw. Mhm. est ndax li ngeen di wax noonu ñun jamono bii may wax yow dañ koy dund dund métti. Mhm. maa ngi tudd Omar maa ngi wootee Italie fii. Mhm. mais fii li ci li ci gën a métti mooy. wàllu ñun suñu wàllu kii tey tey comme ambassade bi soxna soosu li mu wax euh, nu mu tudd si sama yaa déggee moom li mu wax na ñun santiruñ misir yi ne fii. wallaay wallaay. ñun santiruñ ko loolu am na. parce que ba fii may wax yow rek am na sama ñaar a xarit yoo xam tey dañoo war dem Espagne ngir defalu ji seen passeport. te bu ñu demee Espagne dañuy de delluwaat di si waat tey tey tey ak seen i passeport mais ñun fii mënuñ ko am boo demee Milan doo fii ñun kere man maa jël sama téléphone woote ma wootee benn jigéen laa jël xam nga lu ma wax dama ko laaj na man ndax am passeport pour ma mën a retourné sama passeport ñu gis waat mu ne ma yow su fekkee da bëgg passeport jox tubaab mu wax ak man man ñëw ma fi pour tubaab affaire yi alors que moom xamul lan moo tax tubaab bi woo ko mm-hmm. ma jël téléphone bi ne man boo téléphone bi tubaab bi la man damay liggéey ak tubaab bi mm-hmm. moom mu yaakaar ne su ma ñëwee foofu damay toog deux jours trois jours du ma ñibbisi te bëggul loolu moo tax moom mu ne xaar mu wala pour xam ndax man foofu laa jëm ci wala jëm ci ma foofu mu coupé ma. Hmm? mu coupé ma waxatut ak man. Hmm. ma woote waat jëlul. ma am deux jours trois jours après ma waat ko bu ma ko woowee mu ne ma ma ne ko léegi man am naa kayit. mais amuma carte d'identité léegi dama bëggoon ñëw Milan su fekkee ni dinaa fa mën a am sama passeport ci nu mu gën a gaawee ma am ko fa mu ne ma léegi su fekkee da ngaa bëgg passeport te amoo carte d'identité da ngay lijjanti carte d'identité da nga ko pendant six mois bu génnee nga ñëw fii ñu defaral la passeport. ma ne waa lu tax Espagne moom bu ma fa demoon tey tey tey am passeport mu ne ma loolu Espagne la concerné ñun loolu concerné wu ñu. <laughs> waaw. six mois ngeen waaw 6 mois la ma wax moom ne ma da ngay déposé après nga am 6 mois yow nga doog a jot sa carte d'identité ma ne ko waa léegi su ma déposé 6 mois carte d'identité léegi bu ma déposé passeport mu war a nekk ñaata mu ne ma moo sans départ rek ci Sénégal quoi ma ne ko ñu fanaan jàmm après léegi man fii may wax ak yow nii xam naa ne incha tey bu desee damay def Espagne defar la ji parce que Espagne woote naa fa gars yi ne la ma boo ñëwee tey tey tey suba indi sa 35 ñu defal la sa lépp dem ak ñibbi sa sa non Espagne moom ñoom ñoo côté boobu moom ñoom ñoo ñu tane. ah ñii nañ leen siiwal ñii liggéeyul nañ ko wax. Mhm. fii moom Italie fii moom boo bëggee dégg dégg rek ñun moom fii moom yëguñ yëguñ dara dara dara si si bi nekkal nguur. wax ak yow rek démb démb am na benn jigéen bu fi ñëw ñu koy war Roqya di def benn benn projet mu léegi day def chaque fin de mois ñun moo di fi nekk kenn ku ne dugal si kees bi. cinq euros cinq kenn bëgg ñibbi jigéen moo ñëw di def koy def am na xamante ne nii ah comme li comme li sama wax am na ñu bëri nanguwuñ mais cinq chaque chaque mois cinq euros. dëgg yàlla loolu bëriwul. chaque mois cinq euros du dara waaw léegi bi mu waxee loolu mu ne ko yow yaa ngi nii ñun Sénégal moo ëpp doole Bangladesh ba am na benn réew bu ñuy wax Bangladesh foofu ku fi dee gouvernement moo loolu dëgg la gouvernement bi war na mën a ñëw jël si képp koo xam ne génn àdduna loolu sax moom moo rôle gouvernement moom waroon na ko mën ko génne aduna génn nga aduna kooku moom gouvernement waroon na la mën a jël si mais léegi loolu yi article boobu amagul Sénégal kon cinq euros cinq euros yi war nañ ci mën a dem war nañ ci mën a participer parce que cinq cinq cinq mois cinq euros lu wax dëgg yàlla lu bëriwul mais hmm. yow xamal sa bopp mais bu ma xam et puis li mu wax dëgg la itam li ma wax dëgg la mu ne ma xamal sa bopp mais bu ma xam. Mhm. man dama la ko wax nga dëgg wax dëgg yàlla xam nga affaire yi métti na métti koo xam ne mënoo tax mënoo toog wax mu nekk. day na waaye sa balaa may génne ci émission bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax man chaque jour dama liggéey ñëw jax ma dag ñi yéen yéen yéen yéen weer bu nekk trente cinq euros ngeen joxe. non cinq euros. cinq euros cinq euros la. mais cinq euros yooyu dafa am nanguwul. ha juróomi amna ñu bañ. né bu ko juróomi euro oh. pour buñu deddo ñu indi leen. buñu ne amna am ñoo dañ né dafa bëri. hmm amna ñoo dañ né da bëri ñom mënuñ ko. <laughs> yéeme na yéeme na torop torop torop. <laughs> jere contane nañu contane nañu sax na mati. 5 euro xam nga 5 euro wax deug fa yàlla eh, carte yi ñi jënd ëpp nako ndox ma ñi jënd. ëpp nako 5 euro mo ay 3000 francs. 5 euro du dara. Mm. ci immigré ko xam nga xam. euro mm. boko ko décalculé fii. da da sonal. Mm. mais 5 euros ci li nga xamni ñom lañuy la di dépenser par jour mm. du dara.